yàlla daldi sakk nit ku njëkk mu di ko sakk ci suuf si te jël ngelaw sol ko ci paxi bakkanam nit ki daldi dund noonu yàlla tuddee ko aadama mu daldi ko sakkal itam jigéen bu ñu duppee awa yàlla bugg leen lool te sopp leen lool yàlla jox leen lépp ndax ñu elif ko te yàlla sakkoon na benn tool bu rafet dugal leen foofu wante dañu doon topp yàlla di déglu kàddu yàlla yàlla ne benn bés yàlla ne may naa leen lépp nag ngeen lekk garab yépp ci tool bi ba mu des garab bi xam lu baax ak lu bon wante ñu tànn ñàkk a déggadil yàlla te dal di lekk ci garab bi leen yàlla waxoon bu leen ko lekk keroog buñ ca lekkee keroog la bakkaar dugg ci seen biir xol keroog la leen yàlla génnee ca tool ba ñu nekkoon te dàq leen noonu nag ci la nit di commencé di sonn te balaa muy lekk dana liggéey ci la it coono ak dee daanoo ci nit